Jungle. su faju xaajo day wax ni maa ngi koy wax léegi rek ci dallu suñu baay Babacar ne nitu yàlla bu ñu koy liggéeyal nga takk ca jàpp ca dafa mel ni nga fekk mbalkam parfum nga suub ci sa bopp waaye ñuy liggéeyal nit yàlla nga toog ne yàcc defoo ca waxoo ca xalaatoo ca sax lu baax fa nga toog rek nga toog neen dafa mel ni nga fekk foosu ubbeeku nga dugg ci kon loolu musiba la kon nag tabaarakallaahu ñoo ngi ndokkeel suñu baay sëriñ Habib di ndokkeel suñu wéyjur sëriñ Papa Thierno Kandji Baye Daara waaye nag di ndokkeel suñu mag sëriñ alaaji kañ yi di ñaan yàlla lii yàlla na ko muurloo waaye di ndokkeel suñu baay bi di sëriñ Babacar kañ moo waroon ubbi waaye def leen lañ ko ubbi bu paree rek mu ñaan waaye di ndokkeel suñu soxna yi tabaarakallaahu soxna Kolle soxna Ndey Faatu soxna Umu ak suñu yaay soxna mulit di ñaan yàlla lii yàlla bu mu yàlla na ko yàlla gën a yokk ba ca kanam xam naa di tàggal gan yi ak xarit yi am di jàmm yi leen wax na rek tabaarakallaahu maam Cerno Kaañi radiyallaahu anhu buur yàlla na boo xam ne kenn nattablewu ko ndax it zawiya bii ne ci suñu ginnaaw wax nañ ne amoon na ay jamono ñu di ko tabax mu fekk fi góor bi waaye moom moo engagé woon pour tabax ko benn alalu nit bañ cee dugg ndeke bi mu waxee entrepreneur bi koy tabax mu ne ko fexeel ku ci bëgg a barkeelu rek ndax man xam naa nit ku ñuul xam naa it nit ñi seen yitte ci yàlla waaye bu ci kenn def dërëmam ndax tëju naa ci xalwatu ci suma borom laaj ko bam jox ma ci ndigal bi yàlla dogalee jàkka ji àgg sama maam ñu teg ci ay fan ñii neen quarante jours ci taarix góor gi tëdd yàlla wan ko paleem ca aljana waaye ci biir palais bi am na fa jigéen ju rafet ju sol lu weex tàll di bàggante ci biir palais bi ci la xalaat nag laaj maçon bi doon tabax jàkka ji ndax bi nga tabax dafa am ku ci def dara dërëmam mu ne ko am na soxna su doon tabax këram ba kër gi ak benn birig desoon fa mu ne da koy indi barkeeloo ko ci jàkka ji ne woon naa ko nag góor gi nee na bu ci kenn def daraam soxna si ne ma kon móol bi nañ ko bàyyi fii mu toj ba yu yàqate ma xam ne loolu day yàqu ma boole ko ci liggéey bi mu ne kon gént gi ma gént yàlla wan ma sama pale ci aljana soxna sama gis mu di fa mooy ka fa defar birigam kon kooku ku amutoon cër ci yàlla doo ak yàlla du la wan loolu kon nag tabaarakallaahu nit yàlla la boo xam ne ñëpp ñoo ko seedeel ci jaar ibnu baaba mi ñu miin mi bind mu niitul murit ci tariqa bi doon na wax ak waa njaareem naan leen yaa ahla dawiyata njaareema inna lakum shayqan bikum saalikan subulal huda abadan imaamukum cerno laa tabuxu bihi badalan wala taraw xayru ma yad'u lahu rashada waaye nag maa zaala musuqidat minhu rizaalun yadun yamuddu naxwi lmaxaari warrashaadi yadaa biha taxalla wa xalla waktasa wa kasa wa saara sayra abil mansuuri wajtahada ñu ne ko xamuñ ki ngay wax de mu ne bi malikin malaka taqdima wa ntasharat bihi tariqatu naxwi almakrumati aluda tijaan ibnu baaba alxalawi nee na yéen waa njaare bi zawiya buñ ko waxee ci lugatul arabiya mooy firi koñ mais bu fekkee ne maana maanawi bi dafa dellu ci xaqiqa zawiya mooy ñoo xaman koo xamante ni nii daa liggéeyal boromam ba boromam nangul ko mu tabax jàkka ba sama borom jox ko ndigal pour mu tabax zawiya mu dóor ci kachem bu fekkee ci xaqiqa loolu la ñuy tuddee zawiya mais bu fekkee ci lugatul arabiya zawiya li muy tekki mooy koñ jamu bi mooy zawaaya gannaaw jàkka ji ci koñ bi la nekk moo tax ba muy wax daf ne yaa ahla zawiyata njaareem lam ca na moom mooy yéen ñi dëkkee jàkkee maam Thierno Kandji te li may wax yépp quartier bi la inna shayqan aziman bikum moo fa nekkoon ñu xasaf ko ndax xarafu inna tawkiid la inna annaka anna laakin layta laalla ku jàng grammaire arab xam nga li may wax inna shayqan aziman wala inna shayqan am ngeen sëriñ bu mag bikum bu bokk ci yéen ñu ne ko xamuñu ki ngay wax de mu ne saalikan subulal huda abadan bu ngeen xamul kooku moo suubu yoonu njub ba faaw ñu ne ko xamuñu ki ngay wax de mu ne imaamukum cerno waxuñu ngañ njing de waxuñu Moussa Faye de ah ah imaamukum cerno seen sang bi ñuy wax maam cerno kaa ñi tel di leen jiite waxtu yépp laay wax laa tabuxu bihi badalan bu leen wut kenn ku ngeen koy weccalee bu ngeen ko defee wala taraw xayru ma yad'u lahu rachada Tidiane ibnu Baba nee na góor gi ni mu tàllalee loxoom ci yoonu njub jox yàlla boppam tàllal ko ci yoonu njub tege ci yoonu njub ji xencu yàlla dina amanu ashaddu xubban lillah góor gi ci yoon woowu la jaaroon te du ngeen gis ku mel ni moom kon ku am góor gu mel noonu faw nga di ko tiitaru ku am góor gu mel noonu faw nga di ko delloo njukkal lii nag bisu sant yàlla la bisu mbégte la yal na yàlla nañ ko muurloo yal yàlla may ñu fekk ko ay déwéni déwéni dama liir ci benn téere ci suba rek maa ngi koy wax ab benn majnuun sëriñ alaaji yi si ci jàkka ji mooy ab dof bi mu dugg see ci jàkka ji jumaa ji al benn aljuma dugg see ci jumaa ji ne mooy jiite tey te imaam baa ngi toog ci sàppe kanam gi gars yi ne ko doo fi jiite parce que wéroo mu ne maa jiite tey gars yi ne ko doo jiite man man maa jiite imaam ne leen bàyyi leen ko mu jiite xam nga bi mu taxawee ci ci ci mihraab bi lan la wax alhamdulillahi alladi xalaqakum min nisnatayni wa xasamakum qismayni wa jaala minkum agniya li tashkuru wa jaalakum fuqara li tasbiru wala ganiyakum shakar wala faqirakum sabar qumu ila solaat ayyuhal munaafiquun dégg nga li wax <laughs> mu ne ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu bind ci ñaar mooy ñu bàyyi ko ci maam Xawa ak maam aadama te lépp loo gis yàlla ñaar la amal góor jigéen mag ndaw ku rafet ak ku ñaaw ku salte ak ku set guddi. bëccëg lépp loo gis rek am na si xanaa xamoo ne xanaa xamoo ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaaba gi mooy mooy mooy seexam ñiy liggéey ci lasaraar xam nañ kaabatu lu muy tollool al kaabatu Muhammad bu doon am bu doon am róowaale mooy kaaba gi mu ne yàlla moomu moo ñu bind ñu bàyyi koo ci ñaar ba mooy maam Hawa ak maam aadama waaye nag mu mu mu séddale ñu ci ñaar mooy ñii am ñii ñàkk waaye nag ñi am santuñu te yàlla tax jërëjëf Sarr yàlla boo ko ñàkkati mu ne ñi am santatuñ te yàlla tax parce que li tax mu sant mooy may gi ko yàlla may gis nga nit bu amee alal pour yàlla mën koo nattu ñu xam ne kii jullit piir la mooy bu yàlla nangoo alal gi nan lay taxawaatee ndax wala nabluwannakum xataa naalama almujaahidiina minkum waaye nag lam ca teg mooy wa saabiriin xoole yéen ci yàlla ayuba nattu gi ko fi daloon ak ni mu bëri woon alal wa daaka ayuba li durri masahu fa as fa usila ad durru xiina daaka mu ne waaye ñi ñi nga xam ne dañoo ñàkk mu ñutuñ te yàlla tax mu ne nag ko dëkk ñii nag doo am jàmm mu ne nag yeen mbooloo mi jug leen ngeen julli yéen naafeq yi xutba boobu la def kon tabaarakallaahu liñ cay déggee mooy nit ku nekk su la yàlla joxee ak bu la joxul dee ko sant ndax la rabiatul adawi waxoon yàlla ne ko yow yàlla yow laay waxal mu ne ko naam mu ne ko bu fekkee dama lay jaamu ngir bëgg aljana xañ ma ko bu fekkee dama lay jaamu ngir ragal safara tàbbal ma fa dama la dama di jaam bu la war a jaamu rek jafe na kon nag yàlla ñu yàlla may ñu doon ay jaamu yàlla waaye nag ñu topp suñuy kilifa ku ko ci def da am jàmm